ni yàgg na nekk yitteem ci jamono ji muy nekk candidat ci élection présidentielle yu ñu jógee joomaay tey nekk njiiti réew Sénégal mu mel nii loole daf ko tàmbalee jëfee ndax ay fan a ngi nii ñuy waxtaanee lu jëm ci paiement impo jëmale ci entreprise de presse yi loolee nag daal di jur coow bu baax a baax suñu sukkandikoo ci Mamadou Ibra kan moom mi jiite patronat presse sénégalaise bi li mu xamle mooy secteur de la presse dafa nekk ci ay jafe-jafe te li du def lenn lu dul gën ko naxasal. 40 milliards nga ne da xoj la presse sénégalaise. ba presse sénégalaise boobu dina mujjee euh, tumaranke complètement euh, comme li dal euh, dëkk yi ñu wër. Macky Sall laata moo dem jotul woon jël décision ngir rek daal di signé boobu la décret ngir neenal xaalis bi nga xamante ne ni moom la entreprise yi daal di amel nguuru Sénégal wante rek suñu sukkandikoo ba tey ci Mamadou Ibra Kane faaw rek ñu xam ni presse dafa nekk lu am solo ci réew ndax bokk na ci luy jëmal démocratie. alalu citoyen sénégalais la dégg nga ku wax l'impôt impôt du président de la république moo ko moom du ministre des moo ko moom euh, du service des impôts ñoo ko moom sénégalais ñoo ko moom mais euh, yow créé wuloo ay conditions pour que euh, secteur bi nga xam ne dafa névralgique mu am ñenn si ñoom ñuñ tàmbalee bloqué seen compte bancaire bu ci mel ni groupe Madiambal Diagne di avenir communication loole nag moom mi lay di ko ñaawlu bu baax a baax. notification yi ñu ngi ko yónnee euh, les vingt et un vingt deux mai euh, tey ñu ngi le cinq te am na ay entreprises yi nga xam ne euh, ñu ngi tëj seen compte bancaire loolu na ñu yaakaar ne vraiment dafa përëx përëx trop. président Macky Sall gannaaw bu mu desee une semaine ngir rek ñu daal jeexal campagne présidentielle bi ndogal bi mu jëloon mooy fexe ba nee na lépp luy xaalis bi nga xamante ne nii moom la entreprise de presse yi daal di amal nguuru Sénégal mu tolloon ci 40 milliards de francs fa tey nag daal na dem te si ñëwul boobu la décret bàyyi fi coow bu mag